moo la féetee ndi joor arbitre sifflé na combat bi la ñoom ñaari xale yi kaw ak Aliou Fat Fat kii teg 100000 Aliou tubu na suuf raxasu waa jeex mais jeex jaa Fat Fat yi teg 100000 francs mbokk yi loolu ko ci làmb ji jeex jaa ko sakatal ñu xool ak sox jeex jaa Fat Fat ndeysaan jeex jàmm Aliou Fat Fat yow daa mos a ko tol na ko Aliou replié na tooñ na ko léegi fu mu nar a demee ndeysaan ambiance loolu ngeen di dégg Ama Baldé Aliou Fat Fat ñoo ànd di bak jeex daa mos léegi waaye talul Aliou ngay reculé ndeysaan Aliou ngay reculé Franc yaram wi tàng na moom tamit jeex jaam Aliou Fat Fat jeex jaam moo la fene ginnaaw Aliou Fat Fat nga jàkkaar lool bu na suuf raxasu jeex jaam sànni na waaye dalul Aliou Sané na léegi moom tamit. Aliou Fat Fat Deex Jàmm. Aliou Fat Fat Deex Jàmm. damante nañu baaraam. Aliou Fat Fat Deex Jàmm. ñu jàppante mu jeex ñoom ñaar ñëpp. demee nañu wet ñoom ñaar. ñoom ñaar ñëpp li ñuy woote du dëgg ci ñoom. jeex jàmm Aliou Pat Pat. jeex jàmm ak Aliou. jeex jàmm Aliou Pat Pat. Aliou gëdd na ko mu replier daje nañu. jàppante nañ téyante nañu. jeex jàmm daw na jàpp Aliou Pat Pat. Aliou fat fat bañ na. yow jàmm dama na ko sol Aliou téye ci géej yi ku nekk ngi wóotu gemb. ngi téyente Aliou yóotu yi ñu ngi noonu. nañu. jeex jàmm Aliou fat fat. jeex jàmm Aliou fat fat ak jeex jàmm. mu koy biij. bañ na ko. mu bañ. ma ngi koy biij. ma ngay dóor ci suuf ma ngay dóor yax jaa ma ngay dóor. ma ngi dóor doon na ko kuy dal léegi. yax jaa ma ngay dóor ci suuf. Aliou Fat Fat jeex jaam Aliou Fat Fat jeex jaam ñu ngi téyante Aliou Fat Fat jeex jaam na ngay dóor kuy metti na jeex jaam ma ngay dóor dañ na ko nanguwul. Cheikh bi bëri na. Boy Niang dugg si na. ndeysaan Fat Fat. Eumeu Sène dugg si na. ñëpp a ngi ci ginnaaw soq. Cheikh Ndiamba Fat Fat. waaye Franc moom it parcelle kenn desul ñu ngi ci ginnaawam. Cheikh Ndiamba Aliou Fat Fat. ñu ngi téyante. ñoom ñaar ku ci nekk. sëq na am ci ngemb mu ngi koy kal kal na jeex jàmm daan jeex jàmm daan Fat Fat jeex jàmm daan Fat Fat la ilaha illallah cinquième combat cinquième victoire kooku mooy jeex jàmm jeex jeex jàmm daan Fat Fat